لدؤاب للبازار ولا يزال من بزار ويناه لي نزار وغدني بالبرار من بوزار ويمناه لأنازار وغداني بالكرم بسم الله إن ولي الله ñu ngi santaat Serigne tuwaa bu baax a baax a baax di bu baax a baax mboolee mi tey jiital ci nuyoo beeg ziyaar bi Serigne Mountakha Bassir xalif général kullu murit te di ko ñaanal suñu borom yàggal taxawaayam lool ba yéen a am liggéeyal maam maam bu tedd bi suñu borom kàttanal ko ba mu defee ko na kawe njortam ci barkeb Serigne Touba di ziyaare tamit sunu Serigne sunu wasila Serigne Tako moom Cheikh Mouhamadul Mourtala di ko ñaar suñu borom guddal fanam lool ba yéene ji mu nam maam liggéeyal ko maam bi suñu borom kàttanal ko ba mu defee ko na kawe njortam ci barkeb Serigne Touba. maam di wax ni maam cant gi maam ñuy sant Cheikh Mouhamadul Mourtala Mbacke maam daayira soppee Cheikh Mouhamadul Mourtala Mbacke. maam ñu ngi ci woo maam mbooleem jullit yëpp maam bàyyiwunu kenn maam ñu ngi woo ñëpp maam te sëriñ alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala mustapha al amin muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal jàmm ak tawféex di ñaan borom bi nga xamante ni mooy borom jàmm yàlla nu defal jàmm ñëpp barke Cheikhul Khadim ci kàddu yooyu la ñuy sof suñuy kàddu muy kàddu soññee kàddu woote ci bis bi nga xamante ni moom lañ dëgmal muy bisu sant Serigne tuuba jaarale ko ci Cheikh Mouhamadul Mourtada mu nekk bis boo xamante ni bis bu màgg la bis bu rëy la bis la boo xamante ni bis bu yitteel la waa Kër Mbaye Fall gi yëpp di ko soññee mbooleem ñi nga xamante ni ñoom lañ àndal liggéeyu Cheikhul xadim bi ànd ko sunu jawriñu daayira Serigne Aliou Sow Khadimul Khadim Serigne ak soxna xujja ba soxna Faali joob ak Serigne Mohamed Diop mi ak mboolem waa daare bi yëpp yëpp waaye nag daare bi day sàkku di soññi bu baax di woote mbooleem daare yi mu nekkal ci biir dëkk bi rawatina daare bi nga xamante ni ñoom lañ jiital dëppee leen bis bi daare Cheikh soppee Cheikh Mahamadul Karam Mbàkke nooré ni mi leen koy soññ di ko soññi daayira Zuridan abadan di leen fàttali bis bu baax baax di ci woo daayira soppey Serigne Saliou waa kër si Abdoul Ahad Mbacké di ci woo daayira soppey Serigne Issa Diène le 7 mars bis la boo xamante ni bisu waa Kër Mbaye Fall gi yëpp la bis la boo xamante ni bisu képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah muhammadu rasulillah bismillahi rahmaani rahim gannaaw bañ sante yàlla julli ci yonent bi ñuy santaat Serigne Touba bu baax a baax di nuyu kenn ku nekk ci mbooloo mi di leen baal xàq bu baax te di leen ko baal di ñaan ci barke Cheikhul Khadim yàlla nañ sëriñ bi doolee dimbali di sof ay kaddu rek ci kaddu yi xam ni jëriñ Mouhamed Diop wax na ko ak jëriñ sëñ aale kaddu yi mat na te it matale na kon yàlla nañu sëriñ bi may dégg ak topp nan la ñu ñaanale Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal suñu yaakaar tey gël ak sëriñ tàkko moom Cheikh Mouhamadul Mourtada suñ borom kàttanal ko dooleel ko ba lépp lu mu nam ma liggéeyal waajuram mu tedd suñ borom defal ko lu kaay di ñaanal suñ jëriñ bu baax muy sëñ Aliou Sow xaadimu xadim suñ borom kàttanal ko dooleel ko te boole ko ci milliardaire sëñ Tubaay nan lañ koy ñaanalee suñu waajur yaa xuja bu baax ndax ay mag lañ te it mënoon nañoo wàcc te wàccuñu kon ñun xale yi nañ yor nañ roy ci ñoom tey doole xool baax a baax fi ñu teg suñu tànk woote bi nag ku ko dégg daanaka xam ni soppe Cheikh Mouhamadul Mourtada ñooy def sant Cheikh Mouhamadul Mourtada fële ca Kër Mbay Fall Kamb di ci woo mbooleem jullit di ci woo mbooleem taalibe yi rawatina daayira yi ñu ngi ci woo képp képp képp ku dégg woote bi rek xamal ni mooy sa carte muy sant Cheikh Mouhamadoul Mourtada le 7 mars bis bi nag niñ koy taxawalee bu ñu xëyee incha allah dinañ wàcce kaamil 9h ba ba julli tisbaar bu 2h jotee dinañ julli tisbaar bu jullee tisbaar pare daanaka ñu jublu ci bernde yi bernde nag ku ko dégg moom ku ne yaakaar naa sa xel dina dem ci xewlu te xewlu moom lu am solo la ci bis kon te suñ mbokk yëpp ñu bàyyi ci xel baax a baax fu ñu julee tisbaar a pare nañ taxaw ci bernde yi buñ demee ba boori vingt heures ñu commencé cérémonie bi incha allahu rabbi commencé jàngum xasaayid yi kuré kuréel yi commencé buñ bu koñ doxalee ba boori onze heures bu sobee yàlla dinañ def cérémonie officielle bi bu ko defee sëriñ bu baax bi ku tedd ki di cheikh sëriñ Tako ibnu cheikh Mouhamadul Mourtada bu yeewoo yeewee ko ñu continuer suñ programme ki xam ne daanaka ñooy taxaw bis bi sëriñ xaarim seen akasa bokk na ci ak Serigne Ousmane Diouf ñuy ñaan ci doole Cheikhul Khadim bis boobu yàlla nañ ko fekk ak jàmm muy la 7 mars yalla defal ñu ci ndam lu kawe suñ jort bépp ndam bu ci daan am yàlla nañ ci Serigne mi defal ndam lu kawe suñ jort ñu ngi tuub di jégalu di ci woo mboolem jullit yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah